mu ne yow yàlla maa ngi lay ñaan nga ñawalal ma sama xel te nga ubbil ma sa bopp ubbi goo xam dootul am limite faraan mubiina la yura li misliya nga may ma fatxan mubiinan ubbi gu bir a bir goo xam ni laa yura li misliya déef ko gisati ci keneen ku dul man cheikhul xadim waliya xasaaxatan wa nuura wa xëb li ya nga may ma xasaaxatan ak cafkak ñamuk jaamu yàlla ju neex wa nóoraa te nga may ma leer wafi siraati yasiril murura comme jéggi siraat mënta ñàkk ndax yaa ko wax ca sóotu mariama wa in minkumu ila waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiyan su ma nu najji la lazina taxaw wa nazaru zalimina fii a jisiya faaw nit ñi jéggi ko yàlla sama jéggi siraat na nga ko yombal bu ma cay jaar man cheikhul xadim wa abliya sikra bi sukuri kullain wahab liya na ma may af dikra alxuraan af dikra tudd sa tur bi tudd lu baax bi sukrin ànd ak di la cant ku laxin ci bépp jamono wa waddani min jumlatil muqarrabin waxudda nii maa ngi lay ñaan nag ma limaale man sëñ Touba min jumlatil muqarrabin ci mboolem ñi la jege ñu baax ñi ngay tudd wala tasal yaa maliki dalili wala tasal bul deñ yaa maliki yow sama borom dalili di ki may tegtal fu may jaar man sëñ Touba wa azibani wa kun xalili wa hëzibanniya nag ma civiliseel yow koo jox xayte mu civilisé nag ma civiliseel wa kunta nga nekk xalil yi sama xarit wa alimani min ladunka ilma la nga ma mayoon Seydina Xadir ba mu jommal yenantu yàlla Moussa mi nga yónni maa ngi lay ñaan na nga ma xamal ci sa ilmu laduniya xam-xam boo xam yaa ma koy xamalal sa bopp ma bokk ci raasixuuna fil ilmi ñi nga xam ne dañuy saxal xam-xam mooy raasixuuna fil ilmi ñiy saxal xam-xam ni lii wér na na nga dem ba ma bokk ci ñoo ñu mujj bokk ci ñoom def ma géej koo xam ni xidam mooy firi bahrun waasi géej gu yaatu naa ko nekk ci xam-xam wakun mu'ayniya te nag ma dimbali ala seytaani ci seytaane bu ma mën a yàqal dara. wan nafsi wal xalqi madara asmaani. wan nag ma dimbali ci bakkan ndax nafsu dafa am ñeenti catégorie am na nafsul amaara bi am na nafsul mutmaina am na nafsu bu ñuy wax nafsul lawaama am na nafsul mardiya nafs yooyu di sonal nit te nga wax ko ci sootu yuusufa mhm. rikk waaye yàlla nag ma dimbali ci sama bakkan dimbali ma ci mbindeef yi ci giiru dund yépp ak jamono yi ولي في الدارين كن معاذا وكن معاذا نغا نيك ديما موسل في ci àdduna ak ci àllaaxira ëllëg وفي deñ فيهما ci àdduna ak àllaaxira lii ñeel ma malaazan di nekk sama wiirukaay yow yàlla wasafiyani xaalaban wa xalbaa. wasafiyani na ma seelalal sama lépp xaalaban wa xalbaa ci lu nëbbu ak ci lu feeñ. waliyahab tarxiyatan wa te nag ma may tarxiyatan ak yéeg jëm ci yow wa xubbaa ak cofeel sama digganteeg yow. wa kun wali bil aati wal adaa. wa kun na nga nekk wali yi di méngoog sama mbir di ma téye lépp fil xayaati ci dunduk àdduna gi wala da ak cafan. mawti wa fil xabri wa fil asri xadaa wala daa mawti ak jamono bu may faatu di génn àdduna wa fil xabri ak su ma nekkee sama biir bàmmeel wa fil xasri ak bisu pang ma xaadaan ëllëg ca yowmal qiyaama wala tasalli yaa afi suamiya wala tasal bul deñ yow yàlla yaa xafiisu yow miy wattu jaam ñépp dara ump la bul deñ lii ñeel ma xaami yan di ku may protéger di ma aar wa xaafisan bul deñ di ma wattu wa xaajiban bul deñ di nekk sama kiiraay wa raadiyan bul deñ di ma gërëm wa wa mursidan muallima wa jaasiban bul denc di ma ñoddi wa murshidan bul denc di ma jubal mu allima tamay jàngalal sa bopp di sama professeur. wa qaidan nga may wommat tam ilal huda jëme ma ci sa njub yi nga xam ni mooy lislaam mukarrima nga may teral. wa haadiyan wa naasiran wa munifa. wa haadiyan ngay aji jubal ma wa naasiran ngay aji dimbali ma wa mutxifan ngay aji taqale ma lan. bikulli man yanfa'uni wa bil tufa ngay aji taqale maag bi kulli maa lépp loo xam ne nii daf may jariñ wal tuf bii te danga ma ñeewantal yow yàlla wa bii te nag ma sóob yow yàlla masaalikal xalaas ci sóobuwaay bi nga xam ne ku ci jaar léppam sell wal takfini an nii maasi nag ma fegal an jumlatil maasi ci mboolem xeeti mooy yàlla yi bu ma ko jublu wabislukan rabbi tariqal awliyaa waslukan bii nag ma sóob rabbi sama borom tariqal awliyaa yoon wi nga xam ne sa yi ci la ñu sóobu yan mu ni annu jabaay ñi nga tànn al muxlisiin ñiy sellal seen diine al ñi nga xam yaa leen sellal waaw li nii la soola ay yow yàlla na nga ma may ay yow yàlla na ma jox saadatan ak texe goo xam ni lastu ara dootuma gis man sëñ Tuuba dootuma gis saxaawatan ak texee di mim baax di ah ginnaaw texe gi nga may jox aw dararaa war a may gisati benn lor wal tusbitan xubbaka fi fuaadi wal tusbitan na nga saxal xubbaka sa sopp gu ma lay sopp fii fuaadi ci sama xol wa xumba xayril xalqi fi tamaadi nanga saxal tam waxu ba xayril xalqi sopp ko may sopp ngën ji mi def yanantu bi fii tamaa di ci ki wéyale éternellement wa baali wa sahbi jami ak sopp waa këram wa sahbi ak ay àndandoom jami mboolem seen ñoom ñëpp zumata hubba kulli muslimin muti yow yàlla maa ngi lay ñaan man sëñ Tuubaa nag ma may tam hubba kulli muslim may sopp julit bu mu doon ma bañ benn julit mu teex tamay topp sa diine ji ya rabbana ya rabbana yow sunu borom yaa zal ataaya yow mi moom may ajib wuyu ma ci lii ma lay ñaan. tawassuli bil Mustafa al muntaxabi. maa ngi def tawassul di wéeru ci yow wuyu ma bil Mustafa ci darajey ki nga tànn muy yarantu bi al muntaxab ki nga xam yaa ko tànn ci sélection mu gën ñëpp di seen sang. zuma lay salliyan xayra salaat. su ma topp nag salliyan may ñaan nga dolli xéewal àll ci yarantu bi xayra salaat ngeen ji tedd xéewal. taxuuduni nii daf may womat ila mulaaxaatil xudaat ba ma dajeeg sa njub gi nga xam mooy dëgg wal tuxri nii bi hubbi kulli muslimin wal tuxri nii na nga ma xiir man sëñ Tuubaa bi hubbi kulli muslimin ci ma bëgg bépp julit bi ma bañ kenn wa najji nii min charri kulli mujrimin wa najji nii nag ma musal min charri kulli mujrimin ci ayub képp kuy tooñkat wa axri nii bi taatin wal takfi nii wa axri nii na nga ma xiirtal bi taatin ci topp yàlla wal takfi nii na nga ma fegal yow yàlla anil maasi wa jamii fitani anil maasi walif may def ay ay mooy yàlla wa jamii al fitani ak mboolem luy fitna nag ma ko fegal yow yàlla wal tuxrijil axyaara min fuadi wal tuxrijil axyaara na génne lépp lu warul lu dul noonu min fuadi ci sama xol wal tudxilil anwaara fi aadi soo génnee nag bëgg naa nga dugal wal tudxilil anwaara na dugal ay leer fii ci sama xol hëedi tamay aji jub wa kun muayni ala ma yuslihu wa kun na nga nekk mu ay ya di ma dimbali ala maa yusliu ci lépp lu yéwénal sama diine. wal tak fi nii jumlatama yu xabihu. wal tak fi nii nag ma fegal jumlatama lépp loo xam ne yu xabihu dafay ñaawal ak jëf ci diine. wal yow yàlla wal turi nii nag ma wan. daqaa iqal asraari sew sew ak xóot xóot yi nekk ci sa secret yi. min ilmika naafi wal anwaari. min ilmika naafi ci sa xam-xam bi aji jariñ wal anwaari ak say leer. wahab liyal yaqiina wal irfaana wahab liyal yaqiina ma may ak kóolute yaqiin sama digg ak wal irfaana ak xam yàlla wa zawqa wal xufraana wa ridwaana wa zawqa ak mus cofeeluk jaamu yàlla wal xufraana ak njéggal wa ridwaana ak ngërëm wal istiqaamata ak jub xocc alal ibaada ci jaamu yàlla wal kasfa wal ayaana wa sahaada wal kasfa ak wiññil ma li kumpa ma man koo xam wal iyaana ak wan ma ma jàkkaarloo wa ak may ma texe waasian ummata wa aslihan du ma fàtte mukk xeetu yanant bi maa ngi lay ñaan yàlla na nga yéwénal xeetu yanant bi yépp kuy jullit yow yàlla mi nga xam yaa yónni yanant bi wa farijan anhum jamian ya ali wa farijan anhum na nga leen wan yoon wu nu muccee ñoom xeetu yanant bi jamian mboole seen yaa ali yow yàlla mi aji kawe ci lépp waram wa baarik suma fi kullum warham na nga yërëm xeetu yanant bi wa baarik na nga leen barkelal ñoom ñëpp suma fi kullahum na nga leen musal ñoom ñëpp jàmmal leen wa najjihim wal tuf bihim waxfir lahum wa najjihim na nga musal jullit yëpp wal tuf bihim na nga leen ñeewantal waxfir lahum jéggal leen seeni bàkkaar matuñu wajalni yaa rabbi min azamil ibaad wajal na nga def yaa rabbi sama borom min azamil ibaad ma bokk ca ngën ngaa màggi jaamukatu yàlla yi indaka azan wa nasiban fi tamaam indaka fi yow yàlla nga defal ma xasan ma am ab cër wa nasiban ma am sama parti sama cër boo xam fii tamaa di day nekk bu kawe ci jaamu yàlla tama ciy wéy wajal jamia arakaati yàlla kaa yàlla maa ngi lay ñaan nag ma defal mboolem sama yëngu comme nit buy dund faaw mu yëngu sama yëngu yëpp maa ngi lay ñaan nga def ko bi fallika di la ñaan nga defal ma mboolem sama dal mu nekk ak topp ci yow ak sa ngëneel wa mamaati fi suna ay yow yàlla maa ngi lay ñaan defal sama dund ak sama génn àdduna bu mu génn ci sunna wal fardi wal mandu bi siran wala wal fardi ak ci farata wal mandoo bi ak loo sopp siran ci lu feeñ waalan ak lu nëbbu wajal mamatiratan li min nasab siran lu nëbbu wa alan ak lu feeñ wajal ta nga def mamaati sama génn àdduna raaxatan muy nooflaay di repos lii ñeel ma min nasab ci sa euh, cër bi nga ma sédd ëllëg wa min jawan wa min xaramin wa wasa nga musal ma ci lépp loo xam ni njàqare lay doon ak lépp loo xam ni tiis lay doon ak lépp loo xam ni nattu lay doon yow yàlla nang ma defal sama jëf jëpp bu ci bàyyi dara na nangu lépp atakuna muqtadan mahbula ba man cheikhul xadim mi la ko ñaan ma mujj nekk koo xam ni day roy lislaam ñu may roy manit di ma nangul samay jëf wa maskani al maskan al mubaraka nang ma defal sama dëkk bii di Touba mu nekk dëkk boo xam ne bu ñu barkeel ay mbiram lay doon wa sayrani salikan wa nasika ba nga mujj ma def man sëriñ Touba ma nekk sóobu ci yoon nekk ku am diine loo daara tuxaa ay yow yàlla koo bëgg a may may ko kon maa ngi lay ñaan nga may ma sama dëkk bi nekk dëkkub ragal yàlla wal ilmi wa diini wa daaral itixaa nga def dëkk bi muy dëkku xam-xam di dëkkub diiney islaam ju wér di dëkk boo xam day yëkkati jaam jëme ko ci ngërëmu yàlla wa jannatan li na nga def dëkk bii di Tuubaa muy àjjana ci képp ku jaar ci lislaam ju wér te ànd ak di am ak taalibi di murit bu dëggal maridi waaye na def dëkk bii di Touba muy défense di ma dàqal képp kuy euh, fecc war may diine di ko saboote wala muy ànd ak iblis ci lu bon wa man faan li kulli hadil muslimin na nga def Touba muy jariñ képp ku jub te nekk julit àqan bu ñëwee na jariñu wa madfaanan kulli hadil mujrimin nga def ko tam muy défendre képp koo xam ni dafay jalgati ànd ak di tooñ sariya wala muy tooñ islam bu mu fi am ndam yàlla na nga def sama dëkk bii mu mel ni aj màkk ci koo xam ni bëgg naa aj màkk te ay moyem dajewul pour mu dem bu ñëwee ziyaare na nga ko may yool boobu waaye na nekk tam ab lay boo xam ni ëllëg kuuteeg diine tamit bu ëllëgee dañ koy wax xamoon nga Tuubaa te lii la la digaloon nga bañ ko na nekk lay ci sa kaw na nekk dëkk boo xam ni dañ ciy fàggoo nu ñuy toppee yàlla sunu borom mi moom xéewal yi taati rajim na nekk dëkk boo xam ni dafay tiital dafay dàq di tiital képp koo xam ni dafay topp seytaane wa maslakan li subul ittibaahi na nekk dëkk boo xam ni ku ci jaar da ngay am yoon woo sóoboo ngir mën a topp yàlla sa borom wa dëkk boo xam ni dafay dàq képp koo xam ni dafay jaar ci yoonu bid'a mooy lu ñu sos ci ginnaaw yenant bi te amul cëslaay ci diine amul cëslaay ci alxuraan ak sunna wa maskanan li dami kulli xayri na nekk dëkk boo xam ni ñi may woo nañu ko bàyyi waaye ñu ngi may ñu ngi may perturbé wa mas wa maskanan na nekk dëkk boo xam ni dafay ñoddi lépp luy tuyaaba wala mu yiiw wa maskanan li dafi kulli dayri da nekk dëkk boo xam ni dafay défendre képp koo xam ni dafa bëgg a loru bu ñëwee dëkk bi défendre ko wa sababan li fari xayril xaybi da nekk dëkk boo xam ni dafay nekk cause dafay sabab ak ubbi ci képp koo xam ni dafa umpale woon xaybu yàlla may ko xaybu muy xam lii kumpa wa sababan li dafi dayril xaybi na nekk dëkk boo xam ni day nekk sabab ci di mën a défendre képp ku am ay sikk ak i ayib bu ñëwee lu ko war a lor nga musal ko yàlla mu mucc suuf sii di suufu Touba na nekk suuf su barkeel soo xam ni danga koy jox wërsëg jox ko sécurité ku ñëwul ci dëkk bi na mucc waa rahmatin wasaatil kulawaan mu nekk suuf soo xam ni suufu yërmande lay doon suuf su yaatu lay doon ku ñëw ñu yaatal la waaye suufu ndimbal lay doon ak xéewal yaa daafi'al aswaa'i wal akdaari yow yàlla mi nga xam ne yaa mën a defendre sa jaam ba yu warul du ko jub jublu wala loo xam ne nëx-nëx la yow laay ñaan بالمصطفى فكل سوء داري ma la koy ñaane ci sa jaam bi nga gën a gërëm mu yenant bi alayhi salaatu wasalaam yàlla nag ma dàqal lépp loo xam ne lu ñaaw la ci sama dëkk bii di Tuuba liman banaw bi ma arafi lii laa doon junj léegi yàlla na nga jéggal ñi nga xam ne tabaxal nañ ma jumaa ju yëkkatiku te bi muy wax lii tabaxaguñ ko mu ni waaye tabaxal nañ ma verbe boo xam ne passé la employé jëlul présent jëlul futur fi'lul maadi la wax bàyyi fi'lul mudaari jànkatu grammaire yaa ngi may dégg kon daa jàkkaarloog jëf ji na nga ma eh, defal njéggal ci ñi nga xam tabaxal nañ ma jumaa ju kawe kawe kawe te fi mu koy wax tabaxagul ku jumaa waxfir li man amarahum bi jami waxfir li man nga daal li jéggal ka nga xam ni amarahum moo leen di digal wala ñoo leen di digal ñoom ñëpp ci ñu tabax ko muy sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Fallou sëñ Saliou na leen gërëm ñoom ñëpp ñoom ñoom ko wali jami man aanaw wala na nga dim te nga dimbalil ma yow yàlla defal ma njéggal mboolem ñi leen di dimbali ci sama jumaa jooju taxaw bina yàlla si bi fadlika tala ñi nga xam ne ñoo fexe ba sama jumaa ji yëkkatiku maa ngi lay ñaan nga dimbalil ma leen ci sa ngëneel wax li kulli man biha xat sakana yow yàlla nanga jéggal képp koo xam ni dafa dëkk sama dëkk bii di Touba. walillati la li xayri rakkina. yow yàlla na nga jéggal képp koo xam ni dëkk mën na Touba jeng jëm fa waaye yiw la fa demee demeewu fa mu ngir yàq. maa ngi lay ñaan na feesal dell ak Touba loo koy feesale nuuran wa rahmatan bila intihaai na nekk dëkk boo xam ne lu nit bari bari bàkkaar bu fa duggee leer ga fay fekk ak nitu yàlla ya fa tëdd ca lay sete wicci ndax leer ak yërmande joo xam dootul am fu mu yem wa risqan a jabal nalaali wërsëg wa waa tuubaay dundee tam yow yàlla maa ngi lay ñaan na nekk ngën gaa lew ci wërsëg loo xam lañuy lekk day lew du ànd ak euh, riba du ànd ak corruption fil usri wal yusri ala tawaali te leen di yomb moo xam jamonoy bekkoor la jamonoy crise la contexte Covid la lu mën a xew dañuy am wërsëgu ñu wali ajul bi bil mi yan fa maa ngi lay ñaan yow yàlla na nga ma tabel ci Touba def fa xam-xam buy jariñe ko fa jànge am xam-xam buy jariñe maa ngi lay ñaantam ak yëkkatiku goo xam ni mbooloo ma fay dëkkee dañuy am yëkkatiku jëf ju baax ànd ak xol bu ragal yàlla yow yàlla maa ngi lay ñaan ñaan ji ma lay ñaan ci tuubaa nang ma ko déglul yow yàlla. ndax man yàlla wax yoon sëñ Touba mi la koy ñaan yow yàlla maa ngi ànd ak bi ma koy ñaan may toroxlu ak wàcce sama bopp te xam ni bakkan bi dafay ànd ak nag foqale ci àdduna kër ci moo tax ma lay ñaan. maa ngi lay ñaan it soxna soo xam ni day nekk soxna su yiw soxna su may dimbali. على الطغى والبريا معين soxna soo xam ni suñu nekkee daf may dimbali ci may gën a ragal yàlla di ma dimbali ci njekk ak lu baax yow yàlla mi aji dimbali laa ko ñaan wa asbilan kanafa sitrika baat yow yàlla maa ngi lay ñaan sa sumbartalu sutura sa mbañ gàccuk sutura nag ma ci sóob koo suturaal mu suturawu suturaal alayya ma jumlati ahli ya sama sutura bu mu yem ci man képp maa ngi lay ñaan képp ku bokk ci sama njaboot ci sama ñooñ na ko suturaale yow yàlla mi nga xam ni yow la ñuy jublu ci aajo yi yow yàlla nag ma muure sa mbalaanu sutura ak sa mbalaanu kaaraange yow yàlla. daari huwa ma fiha jamian musjala. nga muure ko sama kër gii di Touba ak mboolem li Touba lamboo lu mu ci mën a doon. wa turxilil jamia fi maknuni. na nga tàbbal mbooloo mi ci Touba ak lépp ci sa maknun li ngay amale kun mu am na nga ko tàbbal ci biir. ay bika wa jumna anil futuni. loolu nga xam ci ngay amale tamuy sa xaybu te kooku ubbil mu am. ci nang ci sumbartal sutura waa Tuuba ba ñu mucc ci ay fitna waan siraaril xalqi musal sama njaboot ci ay lor ak ay caay-caay ak ak yées gi nga xam ne mindeef yaa ngi koy teg ak ay jëf yu bon wal jinni wa saytaane wal ñu mucc ci ayu jinne mucc ci ayu seytaane mucc ci ayu nattu yi ngay wàcce ci jabar waamirani bi tuxaa wa nuuri ay yow yàlla maa ngi lay ñaan nag ma dundal ci ragal yàlla ak ci leer wa suxde wal waraay fi duxoori wa di nga dëgg dëkkal ma man sëñ Tuubaa ci dëddu àdduna wala waraay ak ci sàmm fii duxóori ci mbooleem jamono yëpp wa maskani al maskan al xufraani na nga def sama dëkk bii di Tuubaa muy dëkkub njéggal ku ñëw bàkkaar bu manaam na ko jéggal wa rusdi wal irfaani wa ridwaani na ko def tam muy dëkkub njub ku ñëw dëng bu jaaree Touba na far jub ku xamut yàlla bu ñëwee na la xam ku bëgg ngërëm bu ñëwee na làmboog ngërëm wadaara ixlaasin wa sidqin wa wara maa ngi lay ñaan Touba na nekk dëkk bu sell du ànd ak sal dëkk bu dëgg du ànd ak rax dara ci lislaam dëkk bu sàmm du ànd ak boole dara sa sunna si wadaara sunnatin wa man jamin bidaa na nekk dëkk boo xam day dunde sunna ak dëkk boo xam ni mucc waay lay doon ci bidaa lu ñu sos te amul cëslaay ci مكان تعلمي maa ngi lay ñaan yow yàlla nag ma defal sama dëkk bii di Touba giiru dina nekk dëkkub sàkku xam-xam. na nekk dëkk boo xam ne dëkkub réflexion dañuy xalaat ci yàlla ak dëkkub compréhension ku fi ñëw bu xamul diine na far dégg diine. wa maskanal insaani wa talimi maa ngi lay ñaan na nekk dëkku orientation ku fi ñëw mën fee jube na nekk dëkku sàkku xam-xam ku fi ñëw mën fee jànge waa man kana tasbi wa tawimi na nga ko def dëkk boo xam ne ku fi ñëwee mën fee amee njub waaye dëkk boo xam dañ fi comprendre diine l'islam wajalhu maa ngi lay ñaan nga def Touba muy dëkk boo xam dañ ciy génne ci ak tooñ ak lëndëm. li noore wa fi kulla man salaam. bu ñu génnee ci lëndëm nga leen di yóbbu ñu ñëw Touba ci leer te nga fegal ma képp koo xam tooñkat la buy tooñ. bu mu fi wajal yaa ba maskani. nag ma defal giirug dund yow yàlla sunu borom sama dëkk biir Touba muy dëkkub topp yàlla sunu borom. fi àddina laka walil maisani. muy dëkk bu ñuy toppee sunna bi yenantu bi andi muy xam ni kenn du fi jaar di topp bidan wajaw ya rab ya ba maskani ay yow yàlla lu la neex def yaa moom sañ-sañ yëpp maa ngi lay ñaan na nga def sama dëkk bii muy dëkk bi nga gën a bëgg fiadina lakk walil maay sani ci mboolem dëkk yi ci suuf ginnaaw dëkkub nag ki nga xam ni moom nga gën a bëgg muy yenant bi far bàkkaar yi di madinatul munawwara wasrib suraati xaati sikala maa ngi lay ñaan yow yàlla nanga aar sama dëkk bii ci ay kàccoor ak i saay-saay وما فيها جميعا مسجلا na ngay aar sama dëkk bi ci dëkkuk dee nga caay-caay ak faasix ak dëkkuk lu bon ak lu ñaaw aki neen ak dëkkuk yàq ci giiru dund yi wal tudxilil jamia fi maknuni wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayib surbaha wa aklaha ana watay surba wakla yow yàlla maa ngi lay ñaan dëkk bi na nga fi dàqe lépp luy ay ay ak lépp luy ay nattooki balaa boole seen bu mu wàccati Tuuba te maa ngi lay ñaan nanga nga teeyal dëkk bi lu ñu fiy lekk ak lu ñu fiy naan na nekk lu teey wajaari manaari man amina maa ngi ñaan nag sama xurum bii di Tuuba ak li ko wër bu ngeen di fomoom bu leen fa jëm na ko aar yow yàlla ba kenn fokkat du fi dugg ma wakun bi ibsi kafilan daamina soo xam ni dañuy xam ni sutura nga fi def mu aaral ma tuubaak li wër Touba li wajlub laal xayra min al jihaati nit six sens ñoo ko wër li ko féete kaw li ko féete suuf li ko féete kanamam li ko féete ginnaawam li ko féete ndijooram li ko féete càmmoñam muy juróom benn wàll yooyu yëpp maa ngi ñaan nga fay jële xéewal yëpp di ko tuur ci Touba. asiti wa fa anil faidi te bu ci yem na nga fegal waa Touba gépp lépp luy ay gàkk-gàkk. ñaani seytaane yaa jëliloo. yow yàlla maa ngi lay ñaan nag ma aar ci seytaane mi yàqal sab jaam yow yàlla mi aji mag. wa maskani wa kullu ma ahooloo. nga aaral ma Touba muy maskani wa kullu ma ahoolu ak képp ku ma njaboote mu bokk ci sama famille. yàllaawu yaa abisu yaa sal amri. ay yow yàlla yaa xafiisu yow miy wattu sab jaam yaa zal amri yow mi am ndigal te am ndogal lu la neex def te moom mbir yi yow laay waxal yow mi nga xam ne lu jaam kawe kawe du la jot ndax yaa féete kaw jaam ñëpp not leen ci sag noteel maa ngi lay ñaan yow yàlla yàlla ni ko loo bëgg Ahmadou Bamba mu ni ko nafsi sama bakkan wa diini ak sama diine su ma ëhli ak sama njaboot wala wala ak samay doom. wa amal kani laka wa diatul abaa wa nii ak sama dëkk Touba wadi'atun laka def naa ko muy dénkaane bu ma la dénk abat ba faw yaa ma koy téel yow. wa kaza ma uxraaya. wa kaza naka noonu dunyaaya sama dundu àdduna ma ak sama dundu àllaaxira dénk naa la ko yow yàlla. fa fii ma nisrifi razaaya. kon fasri fi razaaya fiihima anni fiihima naga ma fegal naga ma dindil naga ma wiññil mboolem lu warul ay jëf yu ñaaw ci sama ñaari dëkk yooyu. ak naka la jumlati man na nga ma wiññil sa mbugalu sawara ci mboolem koo xam ni bi yataallaqu min abnaa'i zaman sawara daal ak mbugalam na nga ko wiññil képp koo xam ni dafa aju ci man yaakaar ma di murit bu mu ca tàbbi ëllëg ci mbooleem doomi jamono yi ma yaakaar wa jumlatil ixwaani min amaaribi maa ngi koy ñaanal mboolem ñi ma bokkal ak mboolem yi sama jege ñaale bu ñu tàbbi sawara ëllëg fi diini aw fi diini wal ajaanibi maa ngi koy yaatal sax yàlla yow yàlla fii tiini moo xam koo bokkal sax maam aadama ñu bokk ban wi ñu tëne aw fii diini wala ñu bokk diine islam wal ajaanib wala mu sori ma sax samaat yow yàlla na nekk giirug dund maa ngi lay ñaan yow mi ñëpp jublu ci aajo nga nekk sama sangewaay dem sama kaaraange tawallani wala takilni li na nga méngoo samay mbir nag ma téyel samay mbir ba ma bàyyee kenn mu may téyel jaam mënul dara yow mi mën lépp téyel ma sama mbir waram jami al muslimina abada waram na nga yërëm jami al muslimina mboolem ñu dugg ci lislaam daal di jébbalu abadan ba faaw te nekk jullit na leen yërëm wasalliyan maa ngi lay ñaan na nga dolli xéewal ak mucc ba faw ci ngën gi mindeef ala muhammadin wasilatin laka kuy ngën gi mindeef mu ni ala muhammad muhammad laa wax wasilati mooy sama àggukaay di sama jokkukaay laka ci yow yàlla waliyaxul na xitaami indaka jaab mën naa am départ bu baax arrivé am daal di ñaaw kon maa ngi lay ñaan naa am mujj gu rafet yow yàlla ëllëg ci sa kanam naa am mujj gu rafet wal tasrifi salaata li sahaba maa ngi ñaan tamit na ma wiññil ak xéewal koo xam ni danga koy jox ñan saaba yi toppoon yanant an nga defal ma xéewal googu ci waa kër yanant bi te nga may ma ak nanguk ñaan yaa ni ku ma ñaan ma may la kon wuyu ma ci li ma lay woo yaa daafi la suwaay wal akdaari ndax rabbi innaka xulta wa xawluka alxaq wa waxduka sidqu fa inni xaribun ujibu daawata daai ida daani faxad daawtuka fa ajib daawati kama waadta fa innaka laa tuful miaat fa atini kulla ma saaltuka fi hadhihi alqasida wa aizni min kulli ma staastu bika min fiha bi jaayi sayidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi alaxirati xasanatan wa qina azaba annar rabbana innana amana faxfir lana zunubana wa qina azaba annar rabbana axfir lana wa li ixwanina alladina sabaxuna bil imani wala tajal fi xulubina xillan lillazina amanu rabbana innaka raufun rahim rabbi hëbli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka samiu du'a rabbi la tazarni fardan wa anta xayrul waarisin rabbi hëbli min ladunka walliyan yarisuni rabbana hëb lana min azwajina wa zuriyatina xurata ayunin waj'alna lil muttaqina imaman rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman daxala bayti muminan wa lil muminina wal muminaati dégg nga rabbi awzi'ni an askuraka an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an ahmala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin rabbi najjini minal xawmi zalimin rabbana zalamna anfusana fa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna minal xaasirin rabbana maa xalaqta haada baatilan subhanaka faqina adaba naar rabbana innaka man tudxili naara faqad ardaytahu wa ma li zalimina min amtar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana rabbana faghfir lana zunubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana ma al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawma al qiyamati innaka la tukhlifu al mi'ad wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan nufaariqu biha iblisa wa ma walaahu wa nulazimu biha rasulallahi sallallahu taala alayhi wa sallam wa ma wa nauzu biha husna alxitaama xaatima eh, subhanaka rabbi rabbil izzati amma nga taxaw ma leeral yooyu aaya ngi jëm ci tëj ñaan boroomam ngi déggu ñaan yi mu ñaan nag solo si mu àndal ni mu bare dani ko rab bi yow yàlla innaka qulta yow yaa waxoon yow yàlla yaa waxoon ci alxuraan ñëpp jàng waxawlukal xaq te xawma waxu kan lañuy wax ni deñ na waaye waxu yàlla moom bokk ca sa wax du dañ mukk ndax yow loo wax mooy li gën a wér ci wax yëpp sa yaa waxoon daa mel ni bi muy ñaan dafa faña yàlla nag léeg-léeg sax benn boos ma misaal ko ci àdduna di gor soo xam ni waxam du nangu mu deñ boo ñëwee la 5 ma jox la 5 millions nga ñëw la 5 bu dajewul dina ko jaral leb dugg fu ne. ngir sàmm waxam. ah te ab jaam rek la. yàlla nag moom. waxam du tuxu du randu. fi ne ku yàlla. mais mais man man xam nga fi ne ñëw nga ci ñaan yi. waaw mooy jeexantalu xasida gi. mais ci biir xasida gi. waaw avant muy ñëw ci ñaan gi. Hmm. sëñ Tuubaa dafaa sol mbubb moo xam ne. waaw ku mës a yegg ci yàlla. dinga ñaan lu jëm ci yow ba noppi. waaw sëñ Ablaye wii. jàngat ko. waaw. wa jumlatil ixwaani. min axaari bi. waaw fi tiini. waaw aw fi wal ajaani bi. waaw leeralal ñett ñi ñim tinu foofu. waa xam nga balaa mu ñëw ci ñaan yi nga xam ne. waaw am na lu mu njëkk a wax fële. xam nga wa jumlatul ixwaan yi mbooleem samay mbokk sëñ sëñ Mbay Jaxate waxee na ko leneen. Mhm. defar nga say mbokk mhm. defar nga ay jàmbur ba ñëpp jag nag nga jàpp sa njàmbur fi mu ne texe gi waxuma la sax ñuy dem texe ëllëg de waaw ci àdduna la wanee ni maa leen mën a texe la ku dimbali maam Thierno sëriñ Touba ku dimbali sëñ Cheikh Thioro sëriñ Touba ku dimbali maam Cheikh Anta sëñ Touba ku defar sëñ Massamba sëñ Touba ku defar sëñ Habibu Mbakke sëñ Touba ku defar sëñ Afia sëñ Touba ku defar euh, sëñ euh, euh, kële sëñ ab Absa sëñ Touba sëñ Mandoumbe sëñ Touba kon man nga koo lim fi ñu bari ku defar Maam jaar Jaara dimbali ko tamit magam sëñ Touba ok kon mboolem ñii samay frère d'accord mhm. samay frère da njëkk a jiite maa ngi leen di ñaana muy wa jumlatil ixwaan yi waaw jumlatil ixwaan yi ko mboolem samay frère yi nga xam ni daal mhm. yaa ma booleeg ñoom ak mbokk mhm. da leen may texe gu leer texe gi nag fii la leen koo inculqué ci ñoom ëllëg mu leer naa ñu ndax fii la di ko njëkk a maye. Mhm. barki démb nga jóge màggalug daarul mooti. Mhm. gis nga tey nag Cerno am. 40 mhm. kilomètres. sëñ Tuubaa ko lu la fa fekkul dama ko amul lu am fii dana am foofa. waaw bili nañ mbokkam. demal Mbusoo bi xool Mamor Jaara ah? demal Gaawaan ak Daaru Salaam xool Cheikh Anta. sëñ Mbàkke Buso demal ci sëñ Mbàkke Buso mi nga xam mooy léppam. demal tey Gede. sëñ ma Masamba. demal ci sëñ ma ak Daaru kari kon la mu ñaan mënees na koo teg baaraam ci àdduna avant ñuy dem fële mu ñaan ko ñooñu dugg nañu kon mbokk yi miin aqaari bi min aqaari bi ndax nag yàlla yaa jegele sunu mbokk ndax li ma bokk ak ñoom kii sama nijaay yooyu jur kii sama bàyyi ko jur bi ma jur kii ñoo bokk jenn ndey kon kay yaa def kon ñu ay mooy ñoo xam dañoo jege ci mbokk ndax fa nga ñaanal képp mu ni déedéet loolu su ma ko defee sax day mel ni xamatuma yàlla gis nga coow lee bari mais ku mus yàlla sa ñaan day yaatu. Mhm. ku mus yàlla. Mhm. dootoo xatal mukk. Mhm. dégg wax. bayit bi ma ci eggee damaa dem ci bayitu Seydil Hadji Malick. bu mu wax ca téeréem bu ñuy wax. Euh, Taysirul Asir. dani wax vir lanaa wali man min baynina nasabun min jihati tiini aw fi diini yàlla ngeen ñu niróo yàlla jéggalal jéggal nu te jéggal képp koo xam ni séq nañoo moom ak mbokk mbokk nag ñaar la mën nañoo bokkee ci diine ji mën nañoo bokkee deret ci maam aadama ñoo bokk ban wi ñu defare loolu sëñ bi wax ni fittiini fittiini mooy ku nu bokkal banu maam aadama ku génn kenn géwél ndax fii tëgg ak géer am na fi déedéet ndax fii géwél dafay am ak law beeg ak naar déedéet jeex naa fittiini mooy ku nu bokkal maam aadama njéggal gi maa ñu bind ci ban ak ndox ñaanal na la door a ñëw ni aw fi diini wala ko nu bokkal bokk diine islam aw fi diini ñu bokk diine islam ndax kii da naan murit kepp la ñaanal. Hmm, déedéet. sañ ngaa wax ni dafa bàyyi Tijaan. déedéet daa bàyyi xaadar. Hmm. daa bàyyi benn laayeen. déedéet waaw diin diini ku ci génn. koo ni loo julit mu ray la hmm. waaw nee na kon ku ma bokkal diine yàlla ñambaas ko ci dugal ko ci. ndax fa la yem sëñ Bàmba ni wal ajaanib. wal ajaanib bi mooy ña sori sax. am aqaarib dafa am ak ajaanib waaye ñi nga xam ne sax dañoo mel ni ko sori ci man moo xam nga nekk France yàlla sunu yaakaar sunu ma toppee yaakaar ma ngir yow far leen a xettaliwaale léeg-léeg nga romb bu bun la man dañ maa convertir dugg naa ci islaam maa ngi retrouvé sëñ Tuubaa ci mbindam waaye far naa ko gëm na ca bokk léeg-léeg nga dem ci bu nu la yéet xéewalu sëñ Tuubaa bi ma xettali fii léeg-léeg nga dégg ko ci espagnol wala ab italien kon ba ngoog maanaam kon Mali bu tàkkul. waaw ak Gambie. ñaan gi dafa àgg ñaan gi fépp la dem. sëñ Touba ñaanut loo xam da koo xatal. dëkkandoo yi dégg ngeen sëñ Saliou mii sëriñ Touba. waaw wane na koo nee na continent ma dëkk sëñ Touba ma wër rek sëñ wax du ma fekk lu di yaatal. ma koy xatal ah, yàlla dafa yaatal mbiram. waaw est-ce que yàlla bu ko neexoon mu ni du ma mayeti Paul dara. ndax Paul athée la. duma mayeti dara. Mhm. ndax Étienne bouddhiste la. Mhm. maa lànk mayetuma Pierre dara. Mhm. ndax Pierre juif la mhm. yàlla doxewul noonu mhm. rahman ñëpp a ngi ci xaamidun mhm. ngay gis koo xam ne day lekk ci xéewalu yàlla ba noppi weddi ko bu doon tey nit nga naan mere naa ko ba ëllëgee damay bloqué sama loxo duma ko joxati doomu aadama tuutee noonu ah? waaye saa boo musee yàlla gën koo jege sa ñaan day gën a yaatu ci ñaan yi ñépp ngay dugal dafa natt yàlla waaw parce que waxoon na ko bi muy dem waaw daa xam la muy jëli daf na yowmal xiyaam. waaw maay ram mu ëhlul barri. moo tax. moo tax damay ram mu ji. ëhlul bari waaw léegi sëñ Ablaye. waaw géej moom mopp suuf mopp yi waaw du benn. ku mën a ram mu géej est-ce que jéeri dana la jaaxal. du la jaaxal. xam nga géej maa ngi koy wax léegi fi ma toogoon ay sew sew yu garaaw yu yàlla def ci mala yi te duñ ko seet te nit ñi nit ñi rek la ñu nekk di ci waaw. Mhm. te yàlla yi mu def ci mala yi gën a garaaw fuuf na ci ay kéemtaan. waaw soo génnee ci mala yi li mu defar ci asamaan yi gën a garaaw fuuf ak li mu defar ci suuf si demal ca suratul xaafir lu yàlla wax la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi naasi walakinna aksara naasi laa yaalamuun yàlla nee na sàkk gi ma sàkk asamaan yi suuf yi moo gën a yéeme fuuf sàkk gi ma sàkk doomu aadama waaye ñu néew a néew a nag dégg ñoo ko xam xoolal géej xaamidun am na ci benn mala bu ñuy wax Mm-hmm. ornithorynque jànkat yi xam nan mm-hmm. waaw xoola ornithorynque ni mu bindoo mm-hmm. moom rek la yàlla sàkk muy nen nen te su nenee ba noppi ba doom yi génn mu toj nen yi day nàmpalaat teg ma mammifère tey nga wax xoolal ci géej am na fa lu ñuy wax cachalot jànkat yi xam nan ko jën la bu rëy boo xam ne mën naa plonger ba trois 300 mètres ci benn plongée géej dëkke na loolu xoolal laa baleine bleue ngaaka bu mag boobu tubaab bi jaaxal jaaxle ci moom mm-hmm. xam nga doole ñaata la am mm. mille six góoru yàlla yu dëgër mm-hmm. nga dajale ci ba muy junni ak juróom benn téeméer seen doole wenn jën am ko te ci géej mm-hmm. léeg-léeg mu song bato daane géej a gën a yaatu géej lépp miracle am lépp a ci biir géej commandant costaud jàng ngeen koo xam ngeen mbiram ci ci ay documentaire am mhm. ci géej la dem ba foo xam ni yaakaaru ko bu dégg fa nodd mhm. ci géej la déggee nodd bi mu ñëwee la ni may dëgg mhm. te fi ko déggee fa sori la ci géej moom mën a yowmal xiyaam dama may ram ma ëhlu sëñ Bàmba nag ni man ñaara am géej ak géej biteeg man nag maa war a ramm ëhlul bari mhm. mooy waa jéeri ji mhm. kon damay ramu ji ahlul baxri faaw ma dem ci géej gi dimbali tey taxaw gi mu taxaw ci géeju maa yomba mhm. ni ko euh, fal baxru mu ne waa géej gi yaa barru yaa baxru waxit laa tusallis bul bokkaale yàlla taala ani taslisi akrim yàlla ëppante naag ñu koy wutal nawle li yashhad bi kaw ni abda man yaxfiru zanba mu ngoog wa kaw ni xadimal mustafa baxru maa yomba fam ko doone fam ko doone kon géej jàngoo taxaw gam fa taxawoon a tax tey jii ñi ci géej gépp euh, maa ngi ziar sëñ Mor Sis Jéey sëñ Mor Sis Jéey ci géej la nekk waaw nappkat la di napp mhm. doomu ndaar la moo ma ko nettali <laughs> bu guddi jotee ñuy yuuxu ci jàng xasaay bi sëñ Tuubaa ci géej gi ma ma neen daa daanu ba mu yàgg rek mhm. muy jàng yi de ci biir géej gi mhm. géej a sori waaw navigateurs yi xam nañ ko géej ci biir parfois ñu def ci 3 mois wala 6 mois waaw waaw mu ne ci géej gi muy napp bu guddee dañuy jàng xasida sëñ Tuuba mhm. sëñ Mor Sis Jéey ma ko nekk ñuy jàng ba mu yàgg dégg ko yuuxu waay ci biir géej gi mhm. xam ngeen loolu yëfi nit mhm. ndeke ñiy daanul sëñ Tuuba xasaay dem am na ci biir géej gi profondeur léegi xam nga lu xam nga lu garaaw sëñ Ablaay ku ne xam na ñaan daa metti waaw ku ne xam na ne ñaan daa metti waaw waaw surtout ngay ñaan loo xam jëmul ci yow laay ndeysaan ñaan metti na waaye ñaan lu jëmul ci yow. moo intervention bu jëmul ci yow loo xam ne ni waaye dimbali sëñ Ablaay mi rek sëñ Ablaay mi te nga ko defal nangam. ku ne xam ne loolu ku baax rek ko man wallaay barke sëñ Tuubaa waaye léegi ki ngay ñaan ne yow ñi may ñaan ñëpp yow sax ñaanama ci dàqal waaw léegi firil ma woy bi waaw wajal kitaabati ilallaahi ahab waaw min kulli xattin wa ilal maahil ahab waaw yow yàlla yow mi nga xam dara tëwu la maa ngi lay ñaan wajal na yow mi nga xam yaa am def-def ak dindi-dindi. yow bi nga xam ni téléwoo ci dara. nit nga mën a wax maa ngi koy ñaani mais est-ce dina ko mën. yàlla moom génn na ci lool lépp la man téléwul ci dara. sëñ Bàmba ni ko yow yàlla moom maa ngi lay ñaan wàcc àll na nga def kitaabati sama mbind mu ma bind ci sama loxo bi. bis ni ki tey lu ma bindati ci sama loxo. minallaahi ahab minallaahi moo xam ne lu ma bind la mu jóge ci yow rek. waaye ahab minallaahi na nekk li yàlla gën a bëgg fa du ma bindati sama loxo. min ku nekk li yàlla gën a bëgg. ci beneen bind bu dul moom. Mm-hmm. ak ci yanant bi tam. Mm-hmm. kon boo bañee mbindum sëñ Tuuba. Mm-hmm. fekk nga moom yàlla may ko mu gën a bëgg bindam. yanant bi gën mbindee fi gën a bëgg bindam. ah yàlla may ma sama mbind na nekk loo gën a bëgg ginnaaw alxuraan. sama bind na nekk loo gën a bëgg ginnaaw waxu yanant bi. ci beneen bind bu dul sama bind. kon mbind lu mu rëy rëy boo ko fi tegee rek. te du alxuraan. du wax yarantu bi mbindu sëñ Touba la yàlla yi gën a sopp ci mbind moom ndax te boobu daa fekk mu teg yonent bi foofu ba noppi waaw da ko fàtte kon sëñ Moustapha damay ñëw ci xasattu zukurallahi shukran mu tayyaban uxaati bu xayral xalqi bil xalqi wal xulqi ñett yooyu laa bëgg nga leeral ma sëñ Moustapha ñëwal xasattu zukurallahi mu jublu naa sant yàlla sama borom képp moom laa jublu sukuran mutayaban cant goo xam duma ko sorxo sorxoo nag cant la goo xam dama koy teelu mu ànd ak teey ak yéene ci sama diggante sama borom uxaatibu xayral xalqi maa ngi waxanteeg ki nga xam ne mooy kan ngën gi mindeef mi nga xam moo gën mindeef yépp gën leen ci bind gën leen ci jikko kooku laay waxaale xadamta bi taxdimil yow yàlla jiital nga ci jiitalu kan yow yaa jiital sunu yanant bi ci sa jiitu nga ko jiitale moo tax amul moroom du dem ci kursu bi <laughs> nga jox ko nag mu indi dëgg koo xam ni dafa ñëw di dimbali dëgg léppam di dëgg yaa ko jox yow alxuraan jox ko lislaam wallaay ndeysaan yow yàlla bi nga wàcc alxuraan alxuraan indi na ay aaya yoo xam ni mu ni alxuraan indi na aay yoo xam dafay far di dàq sax. waaw li dàq lépp loo xam ni warut alxuraan bi mu ñëwee nga wàcce ko muy kéemtaan bi gën a rëy day ñëw di dàqaale lépp loo warul ba du agsi ci sa jaam bi nga gërëm di yarantu yàlla waaw mu ni. xaxartu biha mu ni ci alxuraan ci laa noté ahlal xilaa waaye junnatun ñi nga xam dañoo bañ islaam muy nasaraan ci alxuraan laa leen jaar ba not leen bi asaananil ni nag ci alxuraan tam la ma yàlla mi aji des ci àdduna ñoŋale ba tam ci la yëkkatee mboolem samay gox gox bu sëñ Tuubaa féete daa yëkkati jàng alxuraan sax ci laa doxe man sëñ Tuubaa ba def jàng alxuraan muy sama banque wajaayi waysati moom jàng alxuraan def naa ko muy sama daraja wutuma beneen daraja unil tuubia kaw nii la dallaayi saa sidqi jàng alxuraan mooy sama noblesse mooy sama teddange ci laa amee mujj bokk ca gaa yi dëggal ci seen borom mel ni Aboubacar Saddiq xartu bia min munsilin kaana lii nee na nag ci alxuraan jooju ci laa mujje sax jige yàlla mi wàcc alxuraan jige goo xam ni وأرضيت بسكر بالعلي والنرخ moo ma mujj sax ma jël di ko sant cant goo xam ni cantug jëf lay doon cantug wax lay doon cantug di ko nettali lay doon xaritoo bi ay nan si sama sama sama sama xol mu ngi sedd ci alxuraan sama diggante ak sama borom. wali nafsa tayyabaat. ci laa jaare ba sama bakkan man sëñ tuubaa dafa sell daal di laab dara mënatu koo taxal. wasaltu bi lillahi fil farqi wa raqi. ci laa àggee si sama borom mi nga xam ni moo def fatxu raq am na lu ñuy wax méthode biig bang. mooy éclosion àdduna bi yàlla mi xar àdduna lépp feeñ maa ngi àggee ci xam loolu ci jaar kaw ci alxuraan xara lawaa mu ne nag yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko fajal na ma sama aajo man suñ tuuba bi man jaana bi ci daraja yenant bi nga xam ni moo noondil alxuraan wa inni bi abdun xadimun maalidxi mu ne nag ci alxuraan jooju ci laa mujje nekk di ab jaam di ab liggéeykat ci yanant bi waaye dañ maa defal itqu itqu nag jar naa xam itqu waaw waaw itqu mooy mbaa yàlla xam nga mbaa yàlla mbaa yàlla waaw mbaa yàlla mooy koo xam ni dañ laa goreli ci lépp fépp tuñ la dara fi ne boo ko waxee ñu naan xoolal ñi murit yi waxaat waaw loolu ñi xam tasawuf xam nañ ñi am na nitu yàlla yu ko yàlla defal mbaa yàlla sëñ Hamidou mhm. mooy koo xam ne yàllaa la gorel yow am nga droit yow Hamidou yow mi nga xam ni semple jàng nga. yor sa biir kër. yor say surga ñuy liggéey. nga xëy ni sa benn surga. la neexee bu la xëy seeti 6 mois may naa la ko compter amoo ci bu wér. ah waaw. bala neexee sax nga ni kenn bu liggéey dara maa la sopp te dinaa lay fay sa salaire. amul. jaam mënu ko. léeg-léeg mënoo dimbali sa mbokkum jaam sax. ci pañetu àdduna yi wala pouvoiru àdduna. Mhm. ne ko may naa la passeport diplomatique. Macky mënu. Macky mënuñoo may passeport diplomatique fu ñu bëggatee tukki tukki du jar ñuy taxaw di sonn ci visa mhm. mënu ko mhm. waaw léegi yàlla de nag sama jaam man naa koo boyal man defal ko mhm. etku da nga xam ni dootuma ko topp dara lu mu defati daf may neex ñu am na jaam ñoo xam lu ñu def neex na yàlla azab taor yi waaw azab taray yi waaw mu ngo kamal taran yi waaw kal kubara yi waaw mu ngo eh, yàlla dindi nga ak mbeewte ci man defal matal nga sama jëf ak sama sàmm mujj nga ma dimbali ba ma mujj naa bokk ci ponkal yi mag ci yow nga xam ne yaa leen tànn ñuy ponkal mujj naa bokk ci seen biir kon yàlla moo ko dimbalee loolu xam nga lu ñu la wax sëñ Tuubaa am na ko soo bëggee weddi rek dellul ci yàlla ndax yàlla da koo mënul léegi yow interrogation bii ñëw ni la sëñ Tuubaa am na nangam ah loolu ëpp la nga ne ah da ngaa ëppale yàlla ci maye nangam waaw it ko da koy may jaamam koo xam ni toppatuñ ko benn àq toppatuñ ko benn jëf yàlla koy mbaa yàlla ndegam yanantu bi alayhi salaatu wasalaam man naa am jaamu bi yàlla la kenn du weddi loo donte moo gën ñëpp jël na loxoom teg ko ci fukki bopp di def naa leen al ansaratul mubashara bil janna fukk ñoo xam ne lu ñu mën a téete ginnaaw tey du tere ñu dem àjjana yanantu bi mën naa am loolu waaw kii xëy ci toolu yanantu bi nag amul noppalu guddeeg bëccëg daj ci lu nekk nekk xaadimu rasuulam yonent bi mënu koo signal lool. Mm-hmm. yàlla mënu koo may lool. Mm-hmm. kon itqu mm-hmm. mooy koo xam dañ laa goreel mbaa yàlla la. fa la neex ci pays sunu borom bi jaar. koo bëgg dimbali dimbali ko. loolu moo tax sëñ Tuubaa ci biir njabootam. ngay fekk koo xam ni. bi ko sëñ Tuubaay dimbali dimbaliwu ko ci rakkaa yu bari déedéet. déedéet. am na ñoo xam ne dàq ñu cee julli. waaw waaye jëfal sëñ Tuubaa la ñu lu tax maam Cheikh Rafaal mel ni mu mel. sëñ Tuubaa moo ni. Cheikh Ibra bi mu may jëfal daf maa jëfale yéene teg ma fi ma yàlla teg moo tax ma teg ko fi ma ko teg dëgg la bi ma koy fay dama koo teg ci am mbaq dañ ko baa ko wax daal di koy sànni ci nguuru sama borom foo xam ni bu fa xawee koo woon jëm si suuf du laal suuf ba àddunay tukki sori na fi mu dëgg la waaw loolu nag it xoo koy maye moo koy maye defal it xu dëgg la neex def lu jaawiruhoo kulli xadiman lahoo bihi bihi virtu za qurbin waqat kuntu daana i wallaay ndeysaan yusayiru nii kal aali wa fahbi sarmadan wali xaada dirran xaabaan xayrihil mohi wallaay ndeysaan xam nga xam nga méthode waaw bi li benn waaye di wax ne man di wax dëgg yàlla ni ko sëñ Moustapha di jànge sax dégguma ko waaye ni li may dégg ci yax bi neex na ma man waaw daa neex ndax ni muy ni muy tëggee moo tax hmm. yéen a ji àndal